mu ngi nuyu mu ngi ziyaare ñëpp. ñu ngi baalu àq ñëpp. moo ngi baalu àq ñëpp. ñu ngi baalu àq ñëpp. mu ngi baal àq ñëpp. ñu ngi ñaan yal nañu yàlla boole jéggal. sëriñ baa ngi ñaan yal nañu yàlla boole jéggal. ñu jiital ci nuyoo bi bàyyi Seexu Canaba. nee na mi ngi jiital ci nuyoo bi bàyyi Seexu Canaba. bu ñu ko nuyoo. nee na su ko nuyoo. nuyu na ñëpp. nuyu nañ ñëpp. ñëpp ci biir. ñëpp ci biir. tànt bi ku fi ne. tànt bi ku fi ne. gis naa la. te mën naa laa tudd. nee na ma laa tudd itam. ndax ñoom ñëpp laa xam. waaye waxtu wi. waaye nee waxtu wi. mayeetuñu ko. nee mayeetuñu ko. kañ lañ waxoon la ñuy ñaan. nee dañu woon vingt deux heures la ñuy ñaan. te loolu rek moo doonoon suñu yéene tamit nag. te loolu itam nag moo nekkoon suñu yéene. at muñ ko waxeet loolu la ñuy def. at muñu ko waxeet loolu la ñuy def. ren ku nekk gis na ni mu. ren ku nekk gis na ni mu demee. dama am kersa sax. nee dafa sax mujj am kersa. ci te toog gi nit ñi toog. te wóor ma ni man maa tax ñu toog am nañ yitte yuñ doxi am doxi am yeneen yu ñu war a def ci guddi ma am ci kersa lool ci kersa lool rusati naa nag di leen téyewaat di nag ndax waxtu yu guddi na sant naa ñépp gërëm naa ñëpp gërëm naa yi dafa am solo mu ni jotaay yi dafa am solo jaamu yàlla la jaamu yàlla la bi nee na mu laa tazuulu قدم ابن آدم قدم ابن آدم يوم القيامة يوم القيامة من عند ربه من عند ربه حتى يسأل حتى يسأل عن أربع عن أربع يننت بنينا مني يننت بنينا ألق يوم القيامة ألق يوم القيامة كن بيكتي بن تانك كن بيكتي بن تانك جم فن جم فن لودول دنج لا لاج نين ñeenti laaj. ñeenti laaj. an umrihi. an umrihi. fii ma afnaa. fii ma afnaa. wa an shababihi wa an shababihi fima abla fima abla wa an malihi wa an malihi min ayna iktasaba min ayna iktasaba wa fima anfaqa wa fima anfaqa wa an umrihi wa an umrihi maza amila bi maza amila bi yonent bi nee na nee na sallallahu alayhi wa sallam nee na muy góor muy góor muy jigéen muy jigéen muy mag muy mag muy ndaw muy ndaw ëllëg yowmal qiyaama su ma taxawalee jaam ñi. su lem asamaan. lem suuf. ñépp taxaw ci kanamu yàlla. ñëpp ñeent yi dinañ ko laaj. ñeent yi daal dinañ fii ma afna. an umrihi. dund. ci loo ko jeexal. ci te kiy laaj. te raqib la. raqib dara fàddu. dara du fàtte. du fàtte. du gëmmeentu. du gëmmeentu. nelaw. kon xam na lépp. sa dund ci loo ko jeexal. mu ci mbaax la. ci mbaax la. wala ci safaan bala. wala ci mbaax yaatu lool. mbaax yaatu lool. julli. woor. woor. joxe azaka. aj màkka. aj màkka. baati seede yi. tudd waru gar la. waru gar julli. nee julli. képp ku ku toll foo ko war a defee. boo ko deful am bàkkaar boo ko deful defee it def nga li la war def woor weeru woor weeru ku ko fekke ku ci woor toll ci woor mën a woor mën boo wóorul am bàkkaar boo ko deful boo ko deful def nga li la war def aj màkka ku ko man dem dem yàlla bindal la ab yoon farata benn yoon tuddi baati seede yi. mooy dugal nit ci diiney lislaam. mooy dugal yooyu noonu. mais yooyu noonu. taxul ñuy wax mbaax. taxul mbaax. dëgg. mooy mooy baaqiyaatu saalihaat. ginnaaw farata yooyu. ginnaaw farata yooyu. yeneen yi. dara ëpp ci. dara ëpp ci. dox ak mbokk. dox ak mbokk. bu ñu woote woon jotaay bi. bu ñëpp daje. ñëpp daje. ñu xoolante. ñu xoolante. ku ne bëgg sa morom. te yàlla rek tax ku ne yéene sa morom jàmm te yàlla rek tax yàlla raxas bàkkaar yi defar sunu adduna defar sunu àllaaxira Cheikhuna Tidiane nee na liqaa'ul ixwaani xayrun min alwazifa sama taalibe yi bu ñu dajee nii ñu dajee nii moo gën wazifa te wazifa rëy na de nee na walaw alimtum ما في الوظيفة ما في الوظيفة من الفضل من الفضل أتيتموها أتيتموها ngeen xamoon li nekk ci jotaayu wasifa ci ngëneel di ngeen dem fekke ko donte da ngeen di baf lu di raam ñàkk mën a dox ngir fekke jotaay kon wasifa rëy na waaye nee na jotaay yi moo gën wasifa ñu ni ko lu tax mu ni li annal wasifata tuqda wa liqaa'ul ixwaani yuqda wazifa boo ko faatee mën nga koo fay jotaay bi buñ ko faatee mënatuñ koo fay moo tax maam Sidi Hadji Malick ni malaa'ikullaahi laa ziltu min alkurama xafat bi jamcikumoo tuuba li man xadaru jotaay yi malaaka yàlla yi dañuy wër jotaay lu fay doon seen mission mooy jéggalul ña fa yàlla. te ñoom. bu ñu jéggaloo yàlla. yàlla. yàlla jéggalal ndax ñoom day. ndax ñoom day. laa yaasuuna allaha. laa yaasuuna maa amarahum. wa yafaluuna. maa yumaruun. maa yumaruun. duñ yàlla. te lu leen yàlla digal. ñu def ko moo tax bu ñu laajee yàlla. yàlla def moo tax jotaay yii dañ koy wër di jot di jéggulul nit ñi mu ni tuubaa li fa teew texe nga loolu jaroon na jaroon na woote mbooloo mi loolu hmm? wa an shababihi fii ma abla fii ma ndaw ci looko ko jeexal ci yàlla ndawul doomu aadama yàlla ndawul doomu da koo yitteel ci ndawu doomu aadama ci lay àtte ñëpp ci ndax da dëgër am kattan am xel am xel dañoo wax ne al aqlu salim dañoo wax ne jismi salim yaram wu dëgër yaram wu dëgër wut wut wu toll fi mu war a toll toll day ànd ak xel mu set day xel mu laab ak xel mu laab looloo tax yàlla bàyyi xel bu baax ci ndawu doomu aadama. nee na loolu tax yàlla bàyyi xel bu baax ci ndawu doomu aadama. sa ndaw gi. sa ndaw gi. del examen sa bopp. del examen sa bopp. toujours jotaay yi. yi. ngay teewe. yi yàlla gërëm. li yàlla gërëm. ak yi yàlla gërëmul. bu ci ëpp. bu ci ëpp. ci at mi. ci weer wi. ci weer wi. ci semaine bi. yëngu-yëngu yi jamono. mu ne yëngu-yëngu bari na lool. bari na lool. léeg-léeg nit. nee léeg nekk ci loo xam ni. nekk ci loo xam ni. adduna yi kese la. paasewul buntu bàmmeel bi. paasewul jaral la sa bakkan. mu jaral la sa bakkan. na ana ndaw ñaa ngi ci mbedd ndaw ñaa ngi ci di jàmmaarloo loo ci loo xam ni. yàlla nekku ca. yàlla bi nekku ca. nafsu dong la. te kilifa. ya tax ñu di ko def. kenn ku ci ne. la ngay xëcc. boo ca jotee. boo sa wax dina soppi ko. sa wax jëf soppi ko. tegtal bi. yomb na. yomb na. li ëpp ci ndawu senegal li leen di gaañ. li leen di gaañ. wàllu politique lay doon. wàllu li ëpp ci ndaw yi Sénégal. ñi ñuy jàpp di tëj ci kaso bi ñi jàpp di tëj ci kaso bi. wàllu politique la. te boo ko xoolee. mu ne boo ko xoolee. kenn ku ci ne rek. kenn ku sa bopp ngay xëccal. sa bopp ngay xëccal. waxtu woo amee. waxtu woo amee. soppi discours. soppi xalaat. soppi jëfin. ñun ñi nga xam ni. waa ñun ñi nga xam ni. ñooy nekk ci mbedd yi. ñooy nekk ci mbedd yi. di leen ko xeexal. di leen ko xeexal. te ñoo bàyyi xel suñu. te loolu lépp ci ndaw la. yàlla da koy laaj. yàlla da a julli. mën a julli mën a woor. mën a joxe asaka. mën a joxe asaka mën a dox ak mbokk. profitoo ci. balaa jàll. balaa jàll. ñetteel ba mu ne ñetteel ba wa maalihi wa maalihi min ayna iktasaba wa fii ma anfaqa wa fii ma anfaqa alal nga kër ba am ko nee na nga xam ne da ngaa kër këri ba am ko foo ko jële foo jële fan nga jële alal ji nee wala lewul yàlla dina ko lijjanti. yàlla dina ko lijjanti. bu ko lijjantee ba pare. su ko lijjantee ba pare. wa fii ma anfaqa. wa fii ma anfaqa. foo ko dépensé. foo ko dépensé. Hmm? ñeenteel ba. mu ne ñeenteel ba. wa an ilmihi. wa an ilmihi. maaza amila bi. maaza amila bi. xam-xam bi la yàlla dénk. mu ne xam-xam bi la yàlla dénk. noo ko jëfee. ko jëfee. ci fànni xam-xam yëpp nag. xam-xam yëpp nag. benn bu ci ne. loo cay def. loo na ànd ak ak maandu. na ànd ak ak maandu. ndax yàlla da koy régler ëllëg. yii nii. mu nii nii. ku mu nekk ci sa bopp. ku mu nekk ci sa bopp. nga xalaat ni war naa am ëllëg. nga xalaat ni war naa am ëllëg. war ngaa mën a teg sa tànk foo xam ni. war sa tànk bii dina fi sa àdduna bii. dina fi baaxee dina fi baaxee sëñ Ibrahima mii sëñ Ibrahima mii da ko wax léegi da ko wax léegi muy kàddu gu mu wax rek dem muy kàddu gu mu wax rek dem waaye mu am solo waaye mu am solo lool àdduna nag mu ne àdduna nag nii dong lay dox nii dong lay dox lépp lépp day jeex day jeex ruu nee ruu yàllaa ko moom yàllaa ko moom du takk suuf du takk suuf leer la leer la yàlla bu koy def ci doomu aadama yàlla bu koy def doomu jigéen jam fekk. jigéen jamu fekk. mu ëmb doomam. ndax état bi mu koy jaarale. ndax état yëpp yàlla wax na ko. yëpp yàlla wax na ko. benn bu ci ne. mu ne benn bu ci ne. bu amee ñeent fukki guddi. su amee ñeent fukki guddi. jógee état boobu dem ci. benn état. ba ruur des ci. ba yàlla fekk ko ci biiru jigéen. yàlla moo bay fekk ci biiru jigéen. sol ko ruur. sol ko ak ruur. ruu googu bu koy sol. mu ne ruu googu bu koy sol. yaay ji ko ëmb. yaay ji ko ëmb. du ko yëg looloo tax bu koy jëlaat it. mu ne loolu moo tax bu kenn du ko yëg kenn du ko yëg nag. Baye Cheikh Tidiane dani woon. Baye benn bis ngeen di xëy. suba teel suba teel. fekk biig tëj naa sama bunt. fekk biig sama bunt. léemu. léemu tëj sama néeg. tëj sama néeg. tëdd. yàlla yabal malakul mawti yàlla yabal mu ñëw dugg sama kër mu ñëw dugg sama kër te kenn du ko tijjel te kenn du ko tijjel dugg sama néeg dugg sama néeg te kenn du ko tijjel fëkk sama ruu dem lu ngeen cey am lu ngeen xëy rek ñu ni bàyyi sax dem na misaal mii la ko daan joxe nee na misaal mii la ko daan joxe loolu xereñug yàlla la loolu xereñug yàlla la yàlla moomu xereñe nag nag moo yor léppi doomu aadama kenn xañul kenn dara. kenn mayul kenn dara. lépp ci loxo yàlla la lépp nañu dalal suñu xel. bëggante ci suñuy biir ànd te yàlla tax. ànd waxante lu rafet. di waxante nëbbalante ay ayib. te yàlla rek tax. yàlla rek bu lii amee. ñun àdduna la àdduna ji. adduna ji ci la ñuy aljana. ci dem bar gërëm naa ñëpp. sëriñ bi na gërëm na ñëpp. sant naa ñëpp. na ñaanal naa ñëpp. ñaanal na ñëpp. kàddu yi sax gudd sëriñ bi nee sax gudd sëriñ Cheikh. maa ngi lay sant bu baax. maa ngi lay sant bu baax. di la gërëm. li Alaaji Taala wax. li Alaaji Taala wax. noonu la. noonu la. yaag sëriñ Maodo. yaag sunu mag. suñu xarit suñu xarit yéen ko daan ànd ba lépp jeex moo tax ñu jël kàddu gi moo teg ko ci sa loxo waaye da ngaa xam lu rafet xam lu baax xam ni yaa ñu jaboote ñun ñëpp ñu jaboote ñëpp nga jox ko suñu doom ji mu waxtaan mu yaram yëpp daw suñu xam ni ñëpp xam ni dara jógu fi dara jógu fi de dara fi de fi Eh, xamoo ni doomu aadama. xamoo ni demul fenn. demul fenn ñaari bët rek lay. ñaari bët lay xool amaana sax. soo melee ni man. soo li ci sa ginnaaw. li doo ko gis. doo ko waaye barzak. ku fa dugg. ku fukki bët ak ñaar. xoolee fukki dara dootu um. moo tax nit di faatu. moo tax nit di faatu. nit ñi yuuxu. nit ñi di yuuxu di daanu. di daanu di jooy. di jooy muy ree. muy ree moom naan yaa layta qawmi. naan yaa layta qawmi. yaalamuuna. yaalamuuna bimaa gafara lii. bimaa gafara lii rabbi. rabbi. ay bu ñu xamoon li ma yàlla defal. ay bu ñu xamoon li ma yàlla defal. kon seen jooyee. kon seen jooyee. ay ree lañ koy soppi. ay ree lañ koy soppi. imaam Ali ni. imaam Ali ni. waladatka. waladatka. ummuka. ummuka. yabna Adam. yabna Adam. baakiyan. baakiyan. wannaasu. wannaasu. xawlaka. xawlaka. yadaxakuuna. yadaxakuuna. suruuran. suruuran. faxfaz. faxfaz. li nafsika. li nafsika. an takuuna. an takuuna. izaa bakaw. izaa bakaw. li yawmi mawtika. li yawmi mawtika. wa anta. wa anta. daaxikan. daaxikan. masruuran. masruuran. doomu aadama nee na àdduna bu day yuuxu day yuuxu ndax jamono bi mu ñëw ndax mu delluwaat ci yàlla faaw mu delluwaat ci yàlla huwee huwee benn bis sëñ Maodo daan koy man na xaal boobu dugguma ci man na xaal mu yuuxu di jooy nit ñi wër nit ñi wër di songoo di ree di ree di kontaan di kontaan fas yéene jàpp bisu yéene jàpp bisu tudd mu ni na nga góorgóorlu ci sa ba bu ëllëgee ba bu ëllëgee boo faatoo. boo faatoo. ñëpp ña la doon wër di ree. ñëpp ba nga juddoo ñëpp yow ngay jooy. ñu wër la di di di jooy. ñoom ñu wër la di jooy. na nga góorgóorlu bay rek. na nga góorgóorlu ba bis baa yow nga reetaan. loolu nag li caabi ji. loolu nag caabi ji. mi ngi ci sunu bi. mi ngi ci sunu biir. formaalante. formaalante. joxante xol yi. joxante xol yi. bëggante. bëggante. teralante. teralante. te yàlla rek te maa ngi maa ngi maa ngi yemale kàddu yi. nee na fii la ay kàddu yi tey. gudd na lool. nee gudd na lool. Cerno Alpha ni Cerno Imam Alpha ñu ngi lay gërëm. ñu ngi lay gërëm. ñu ngi lay sant. ñu ngi lay sant. Cheikh Ibrahima Ndiaye. Cheikh daa yónnee ay teraanga yu mat mat sëkk. Pape Abdoulaye Mboum mi Pape Abdoulaye Mboum mi benn bis dafa wax ni benn bis dafa wax ni Baye Serigne Assane bu jëf matee na cant mat bis bi tuddewuma ko kenn mu tuddewuma ko kenn tuddewuma woote rek damaa ko ñëpp yëgal ko ñëpp kooku kooku teraanga bu toll noonu teg ko ci loxoom moom teg ko ci loxoom Baye Imam Alpha teraanga boo xam ni. teraanga boo koy jënd. romb na un million dem mu indi ko ak xol bu sell. ak xol bu sell xol bu set. xol bu set. Euh, baye mani ko. mani ko. Baye na sa wayjur doom. tuddee na sa mi def loolu. Ibrahima Ndiaye mi def loolu. Baayam. Baayam na sama baay doom. kon teraangay démb ya. moom la beesalaat. moom la beesalaat. waaye sant nañ ko gërëm. waaye nañ ko. alaaji ngañ demba saar it alaaji ngañ demba saar booba bis bi des na weer booba mu woo ma ni ma mu woo ni ma bis bi daal nee bis bi daal la ngay sol ca tànt ba maa koy xotti maa koy ñëw maa xotti te maa koy ñëw xam ngeen sañ sa moom xam ma xam ma xam ni moom ma xam ni moom ab porte parole la. ab porte la. ku ñaw porte parole la lay ñëw. porte parole bi bu ko ñëwee. nee te bu ko ñëwee. du ma ko mën a sol. du ma ko mën a sol. ma ne kii nar na yàq sama sama xew bi man daa am nu may ñëwee. man daa am nu may ñëwee. waaye ndeke yàlla dimbali na ko. waaye mu wut basin bu rafet mi ngi nii. mu wut basin bu rafet jees na bu bële lem ba mu jekk. lem ba mu wut xaalis bu bari. wut xaalis bu bëri. def ci enveloppe boole ko boole ko. ni ma ñawlu. ni ma ñawlu. ma kay. xaalis ba bees nag. na. bi ma génnee yére bi. fekk ci enveloppe ma génne ko. ma génne ko xool xaalis bi. xool ko. woo ko ni ko yére bi am na xaalis bu ci ne. ni ko yére bi daa xaalis bu ci ne. mun ma jox ko tailleur bi. mun ma jox ko tailleur bi. ma ne ko bii du ma ko jox tailleur bi. moom du ma ko jox tailleur bi. yow kay jox nga ma rek. yow kay jox nga ma rek waaye man xam naa ni may def. man xam naa ni may def xaalis bees bi du ma ko jox. bu bees bii xam naa ni ma ko def. teraanga ji moo ko def. mu ni teraanga ji Serigne Gandia Bassar moo ko def. jëlaat oto. mu ni jëlaat oto nag. def ci teraanga ju bari. defaat ci teraanga ju bari. yabal ay nit. yabal ay nit ñu dawal ba ci kër gi ñu dawal ba ci kër gi. andi ko indil ma ko fii. ñu ngi koy sant di ko gërëm ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy ñaanal yàlla noonu mu def noonu. mu ne noonu mu sama mbokk yëpp noonu lañ. nee na sama mbokk yëpp noonu lañ. kenn ku ci ne. ku maa ngi koy wax. ci bëccëg maa wax. ñii samay mbokk lañ. ñii samay mbokk lañ. waa Kër Baye Moussa Dia. waa ñu toog. ñun bis bi ci ba léegi. ba léegi wax na ko ci bëccëg. ñoom moom seen teraanga ci kër gi. ñoom seen teraanga ci kër amul àpp. amul àpp. ne. saa mi ngi ñëw. mi ngi ñëw. sant nañ leen gërëm nañ sant nañu leen gërëm nañu leen. yal na yàlla gën leen a taxaw na yàlla gën leen a taxaw gën leen a sàmm yàlla aar yàlla gën leen a aar kenn bàyyi leen ma fi ne bu ngeen bàyyee ne man naa toog man man dama leen a yërëm a mën naa toog ba deux heures mën par kenn waaye jo lool sëñ As. nee na sëñ li may wax. may wax. ji mu def fii. def ko benn seede ci yéen. wutalu ko ko def. man ak moom. man te su ma ko waxoon. te def. li def da ngeen ni daa waroon a wootele yi. da ngeen daa waroon a wootele yi. maa koy sant bu baax. sëriñ bi nee na mu sant sëriñ ci njëkk a tudde am naa ci ay turandoo yu. tabaar ba allah. tabaar kàlla Siis. alaaji bàcc jërëjëf. suma bàcc bëggee lim teraanga yi fi jaar yëpp. nee na teraanga ah, na lool. kon dinaa fi yàgg lool. waaye sant nañ ñëpp. nañ ñëpp. gërëm nañ ñëpp. gërëm nañ ñëpp. waaye Moussa Ndiame. sëñ Gora. sëñ eh, ngi leen di gërëm. nee na ñu maa ngi wax ni bés bi maa ngi wax ni. ko jàpp. moo jàppoon le 9 mars. moo jàppoon le ni ma. sa bés bi mois de mars lay doon. te ñu ngi jàpp bés yi. te ñu ngi jàppal sa bés bi. ma ne ko xoolal ma bés bu baax rek. ma mu ni ma le 9 mars baax. mu yaa ko jàppoon. yaa ko jàppoon mars. jërëjëf jërëjëf. sëñ Gora jërëjëf. sëñ Gora jërëjëf. teraanga yi bari na lool. teraanga yi am na ci mujjee ñëw sax. mi ngi ci otoom. mu gaare la ma ko dee. fii mu ñëwee nag la baax. mu ñëwee rek la yàlla taxaw. yal na yàlla Xalifa Cissé. dama wax daw yaram dañu ma damaa romb nii rek gis tànt bi ma ni lu xew fii ngi ni sëñ aadam moo xew la ci suba ba tey mi ngi ko mi ngi ko ànd ak ñun ñoo ngi koy sant di ko gën waaw di sant nag mbooleem fédération bi teg ko ci loxo président Souleymane Gueye mënuñu leen a fay yéen a ngi wax ni fu ngeen daje maay def waxtaan wa loolu lu ma war la rek. ndax ab sëriñ. bu waxtaanul ci yàlla. ak ci yonant bi. waaw ah, ah, ci lan lay wax. te nag bu ñépp demee doxi seen i soxla. koo koy waxal. yéenay organise xew yi. organise tant yi. fere seen alal. takk seeni i rajo. ni ma kaay wax. war naa mën a yomb. yonent bi daawu ko defe noonu de wa bi xayrihi wa bi xayrihi jalabal wara am na loo xam ni laata mu koy am ci nit ñi jàmmaarloo na ba tàyyi sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp ah foofu laay tëjee kàddu yi rek sëriñ borom dégg na lool ca ca jandeer la amee woon. sëñ keroog sëñ daa jël rajo bi. nee na daan ni kii yëngu bay jooy. ku xam lu ko jooyloo. ko oh. ah. xam boo ko wooyee du wuyu. bu la ginnaaw. du la dégg. lan la yëg. ba tax muy jooy. moo tax denc yàlla. nit ku ne. la nga am. yaay wut foo ko denc. yàlla lim am lépp ci nit ñi la ko def moo tax mu ni jàppante leen rek lépp ba yàlla nañ ko teewee at yu bari yàlla na yàlla faj aaju yépp waa nasru mbootaayu nasru ak délégation bi ñu fi indi soxna Aïssata Diagne jiite ko ñoom man maa leen war a sant man kay li ma naqari ci ñoom rek mooy weeru koor yu may conférence lo <laughs> weeru koor rek te yeneen weer yi mu ngi fi mooy gën a neex ci conférence waaye ñoom koor rek lool rek moo ma naqari ci seen waaye sant naa leen gërëm na ah waa waa sëti sëñ Ibrahima Seck yi borom yaa gis ngeen ni ñuy ñëwee tabaarakallah alaaji taala wax na ko léegi jërëjëf sant naa leen sant naa leen gërëm naa leen waa kër Serigne Maodo Seck waa kër Serigne Maodo Saada Serigne Saada cant foofu moom du ma fi sori moom bëgguma yàq sama jotaay bëgguma foofu laa yem rek sant naa leen bu sant naa leen bu baax sama xarit Alaaji Sira Ndiaye. Alaaji Sira Ndiaye. ma nit ku baax. na nekk ku baax. bëgg Seexu Tidiane. bëgg Seex ci Seex ca Faas. nee ñii lay def rek. ñii lay def rek di baagante dama ko ñëw rek. ma yow fi mu ne nii. ci Seexu Tidiane. sa ni foo ne rek. Seexu Tijaan nga fa am na image bu ngeen di gis ci réseaux sociaux yi ku sol garam bu weex bu rafet uuf ab xale uufu ci wetam ma nga tuur ay xéewal am kuy way Seexu Tijaan ma nga ne le kee kii toog la Alaaji Sire Njaay moomu la nekk nit ku baax yal na yàlla taxawu ko yal na yàlla sàmm ko Sëriñ Modou Dia borom meewaan gis ngeen ni mu ñëwee sama waay la lool di nit ku baax nit ku xam jamono nit dama ànd ak sama gaay yi di dem ndar jaar fa seet ko seet ko ñu toog ab diir mu di ma téye rek ku war a jëm ndar ma yàkkamti ba 18 heures mu daal ma ñëwal kaay ñu dugg ci biir ñu mu teg palaat yu bari mu ma lee xar la ni ma lee xar lee ginaar la lee pitax la lee ay pitax la <laughs> seetal la ci gën a moom moom lay terle moom teg café ak ataaya sama xarit la lool di nit ku yàlla may nag jërëjëf sëñ Modou Dia kontaan naa sant naa ñëpp gërëm na ñëpp njabootu ngusaan ma ma foofu laay jeexale Pape yéen fii yéen a ko moom ñun yéen lañ am yéen lañ am yéen la ñuy sagoo yéen la ñuy te demu leen fenn wutiwu leen dara ñun rek ah, ah kon nag sunu xew yi yéen a ko moom def leen ci li ngeen bëgg rek waaw oh. ah, yal na yàlla wéral leen <laughs> te sant leen eh. dëgg la dëgg la dëgg la

imaamul mahdi yu baax imaamul mahdi yu baax moom kenn la ci man nee sama bés bi su ma ko fàtte woon ba waxuma ko nii lay ñëwee wax ko ko wax ko wax du soppi dara ci moom ndax sama diggante ak moom imaam kontaan nañ baax sant nañ leen ñoo ngi sant jigéen ñi ñu leen jaajëfal tàmbalee nag ci suñu soxna yi ndax ñoom bërki démb ba tey jii noppalu wuñ ngir rek bu gan ñi ñëwee mën a dal man a féex man a am teraanga kon yelloo ngeen jaajëf jëf leen di jaajëfal bu baax yal na yàlla fay leen na yàlla sàmm leen sunu soxna yëpp nag bàyyiwuñu kenn soo na tuutee nga ne la toog moom moom akay moo ki rakkam nañ ko ko jox rek mu yóbbul ay rakkam tabaarakallah moom taalibe cheikh la taalibe cheikh moom moom yëfi cheikhu tidiane jërëjëf waaw soxna mu nii na ñoo ngi koy sant mu nii kan moo ngi àndal ñëpp ak taxawaay yu rafet ak xéewal yu bari yi yal fayal ñu waaye imaam oustaz ci taalif yu am solo yi. moom keroog dama ñëw xomba rek. nee na moom sëñ góoram yi. maag sëñ ci xew-xew bu faam. mu dagg yi muy def yëpp. am taxawaay bu rëy. ci sunu wet. ci loolu nag rëy ci ñun. loolu nag rëy sëñ Njaga Kayre. yóbbul ñu cant googu ba ci moom. yóbbul imam Baaba. ba kenn. bàyyi Jóob ja. Alaaji Jóob Paap ja. sëñ Mataar. ba ci Asan. ñu leen di sant di leen gërëm alaaji Saliou Ndiaye jëf sant nañ gërëm nañ waa Kër Ibra Fall waa Jandeer waa waa ah, waa Xombal sëñ Talla Xaar Ñang mooy fédération bi rek sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp Pape Abdoulaye Mboum mii nag kenn rek la nag ci taxawaayam ci bés moom moom guddeeg bëccëg damaa mujj sax ma ni ko ah man de ma ne ko soxna yi dinaa leen ameel ak. waxtaanal ak ñoom ñu baal ma. yow aw ma aw ma heure. waxtu wu ne laa lay woo. waaye wu ma nee jóge rek. mu ni mu daal di jóg. li ma ci gën a neex nag. ci pambu mi. boo ko nee sept heures. sept heures cinq moins cinq. ma nga taxaw di la xaar. boo ñëwee mu mu daal di def. waaye mel ni kooka rek. boo ko nee sept heures rek. boo ko nee 7 moom da ci lay door a waaj. waaw sol mbaxana mu weex ma su ko defee demal ci sëñ Cheikh. ñu ngi lay wax daay soppe sëñ mu bàyyi boobu sekk borom bés ba ca Ndakaar borom ngi sant bu baax ñu di gërëm bu baax di gërëm sëñ Alaaji sëñ Alaaji sëñ Bamba sëñ taala santaloon nañu ko waaw santaloon nañu sëñ Ibrahima Cissé sëñ sëñ Alpha sëñ Alpha waaw daayira soppe sëñ Aada ñëpp ñu leen di sant ñu nee na ñu mi doon conférence. ci sëriñ ak xam-xam bi mu fi génne. ak xam-xam bi mu fi génne. nga xam ni buñ ca yemoon. ca yemoon. lépp doyoon lépp doyoon lépp matoon na. sëriñ Cheikh day borom xam-xam. sëriñ Cheikh xam-xam. def mu mën a jàng. yàlla def dafa am xam-xam. dafa am xam-xam. ba borom xam bu ko déglu. borom xam-xam bu ko déglu. seedeel xam-xam. xam-xam bu set tabaarakalla mu ànd ak yar nag ak dal yàlla na yàlla sàmmal ñu ko moo tax euh, Oustaz Amadou Makhtar moo ko daan def ren mu am euh, téq-téq ñu sunu xel dem ci moom ñu jox ko ko waaye rëcc wuñ luñ ko ko doon joxe def na sax lu kawe sunu njort na yal na yàlla fayal ñu ko barke alxuraan ñu def fatiha salaatu imam alfa ba nee ñu def fatiha salaatul fatiha salaatul fatiha mu dugal ci suñu aajo yëpp nañ ci dugal suñu aajo yëpp yal na ko yàlla faj yal na yàlla fajal nu aajo yi tam bismillah auzu billahi min ashaytani rajim bismillahi rahmani alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani irrahimi maliki yawmi ddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina sirata almustaqima sirata alladina an'amta alayhim ghayri maghdubi alayhim wala ddallin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya rahman ya rahim ya rahman ya rahim ya rahman ya rahim يا خير المسؤولين يا مجيب دعوة المتضرين يا إله العالمين بك أنزلنا هوائجنا وأنت أعلم بها فقدها allahuma anta laha wa li kulli xaajatin faqdiha bi fadl bismillahi arrahmani irrahimi ma yaftaxi llahu linnaasi min rahmatin fala mumsika laha اللهم أحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا